ñu euh, amoon ndaje moo xamante ni nii euh, CRD la euh, gouverneur présider ko ànd ci ak cellule de veille communautaire bu Louga bi nga xamante ni nii projet bu ñuy wax Oscar moom moo ko fi samp depuis le 4 juillet cellule de veille boobu nag ñi bokk ci askan wi rek ñoom ñoo ci ne di seet nag li nga xamante ni dafay jàppale doomu aadama yi ah te état teg ko fi eh, ñu koy wax sax eh, ay filets sociaux ba xam ban tolluwaay lañ fi am loolu nag dafay permettre pour que ñu mun a am ay xalaat yoo xamante ni eh, danañ ko jox ñii nga xam ni ñoo yor ay ndomba tànk naam sax ñi ngi leen di jox ay carte d'égalité de sens waaye ñi war a jot ci carte d'égalité de sens yëpp xëy na jotaguñ ci te ñi ci jot itam service yi nga xamante ni nii moom moom la carte bi war a maye. yooyu service eh, ñoom amaguñu service yooyu. hémodialysé tamit la même chose parce que tamit loolu ay ay engagement la yoo xamante ni état daf ko jël jaarale ko ci ay kuréelam yu mel ni ay agence de la couverture maladie universelle ñoom tamit ñuy euh, liggéey ak bërëbu fajukaay yi euh, su ko defee ñi nga xamante ni soxla noonu xeetu faj boobu ñoom ñu mën ci jot. te duñu ci fay dara ñu gën leen a yombali tamit ci nan la ñuy fexee ba mën a jot ci paj moomu te coono yi du ci am ndaxte ki feebar yi tamit war a faju bu fekkente ni dañ koy jaaraloo ci yenn euh, jaar-jaar yi day gën a yokk feebaram te bu boobaa bu doon li koy faj lu néew lay doon ba moytu dina bari loolu nag euh, waxtaan la boo xamante ni génn na ci lii